salaamaaleykum wa rahmatullahi taxalaa wa barakaatu moom gannaaw ba ñu waxee a billahi min asheytaani rajim wasalaatu wasalaamu ala nabi alkarim sayidina wa malana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawi ritwaani wa tamkin mbokk yi gannaaw bu ñu leen nuyoo seen mbokkum taal bi Moustapha gi taal sañ sëñ Sama Samba waaye di soppeeb sëñ Mbàkke ma maam soxna loo Jóob Taïf tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Tuubaa tey roy Cheikh Abdoul dëgg moo ñëwaat ci ñaareelu xaaj bi fas yéene ci ànd ak yéen ci waajtaayu ashruna muharram muy bis bi Cheikhul Khadim ñëwee woon Touba ci ndigal lim digaloon jàmbaaram ju mag jooju nga xam ne tey moom lañ fas yéene taarixal ci waxtaan yu xóot yu am solo bañ xam ne li mu doon dañ ko ko waajal waaye ba mu dikkee it mu jëfe ko jëfin woo xamee ne ki ne kawe na bépp njort waajib la ci ñu di ko waxtaane ndax man ko bàyyi loo xel génération bi ñëw ëllëg muy kan muy Cheikh Mamadou Moussa Al Karim ñëwoon nañ ci aw askanam ci lu yaatu wax ci ñim ci bokkal ñëpp ñu war a ñëw nag tey ci ñaareelu loxaaj bi ñëw ci ak ganeeg jamonoom ak fan la ganee jamono ci diggante ñaari waajuram yu tedd yooyu waxoon naa leen ne du taawub sëñ Touba ñi ko ci mag bari na ci jigéen ñi ak ci góor ñi waaye moom la yàlla tànn nag ne li sëñ Touba bëgg ci gannaawam. moo ko war a njëkk a tàmbali mate ko sëkk moo tax ñu naan taaw waaye mi ngi gane jamono ci fukki fan ci muharram ci atum 1306 ci gàddaay gi waaye yamook 17 septembre 1888 am na ñuy wax waaye 88. Cheikh du Moussa mook Touba ñoo maase ñoo tolloo date de loola nekk lu am solo ci diggante ñaari waajur yooyu ci Daaru Salaam muy dëkk bi sëñ bi njëkk a sànci moomal ko boppam ci kaw suuf moo fa njëkk a jamono waaye dëkk ba ci sëñ bi tegit ñoom ñaar ñoo maase kon mooy Daaru Salaam mooy Touba bi matee dem ba mata dal jàng sëriñ bi moo ko daral jàng ci tuubaa ci kër sëñ bu Mbàkke fi koy wax dëru naar ndax bari lu fa naar yi daan ñëw di fa fekk si sëñ Tuubaa ci juróom-ñaari at yi nga xam ne sëñ Tuubaa nga fa nekk waaye laata mu koy dalal jàng ki njëkk ñëw ci loxoy sëñ Tuubaa mooy sëñ Omar Mbàkke Gelongal waajuram sëñ Ibrahima Mbàkke Kajoor moo ko fa indi nee na def na fi lu toll ci fukki weer ak lu topp yoo xam ne si kenn ku maaseel ci mbàkki mbàkki yi amu fi ñam fi fekkoon mooy rakki sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo bokk lépp waaye comme maaseel ñu bokk maase nee na gisu ko fa woon moo daan laalal sëñ bi der bi moo ko daan tànqali ndoxam mu muy jàppoo moom la sëñ bi daan yónni loola nekk lu am solo ba Cheikh Mamadou Moustapha yàlla dogal bi nga xamee ne soxna Awa buso jamono joojee moo fi nekk moo fa indi woon ab laax fekk fa sëñ Fallu fekk fa ki nga xam ne mooy cheikh Mouhamadul Moustapha ak sëñ Omar Mbacke gelongal bi mu tegee laax bi ba noppi nag yàlla dogal sëriñ tubaa sant ko ci gërëm ko waaye daa di laaj sëñ Omar Mbacke ndax xam nga ñii loo bokk ak ñoom waaye sëñ bi moo leen ko mujj leeral ñoom ñépp leeral ko cheikh Modou Moussa leeral ko sëñ Mamadou Fadal leeral ko sëñ Omar Mbacke gelongal laaj na ko sëñ Fallou laaj na ko Cheikh Modou Moustapha mu xamal ko ne ko kat kii kat mag nga ci ñoom ci seen wetu ndey waaye bàyyi nga ci ñoom seen côté bàyyi daal leen fay bàyyi leen nag man ngeen a xéewlu ci laax boobu soxna aw bu sa indi waaye ba ñu xéewloo sëñ bi dafa jóg dem toogee waat feneen ba ñu xéewloo ba noppi sëñ Omar Mbacke moo wax ne walla sëñ Fallou ak sëñ Modou Moussa ñoo wax ne ko bàyyi gan gi lañ ko wax bàyyi gan gi dama booy mal ca sunu baay boo demee ne ko ah na ñëw jël ndab li sëñ Omar Mbacke daal di dëgg tànk yu dër ñëw ci sëñ bi ne ko bàyyi sëñ bi la ko wax sëñ bi ne ko yow day lo tur nga ma woowee mu ne ko maag yow noo ko bokk mu ne ko gone yi nee nañ nga ñëw jël dable sëñ bi daal di jóg dëgg tànk yi dëgg dikk ne leen dangeen ngeen ko yónni kii xam ngeen lu mu doon ci yéen kii lool yi mu ma woowee maa nga ma ko bokk waaye li ngeen may wooyee yéen moom lay doon ci yéen na mujj tey ngeen di ko yónneeti moom Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Moustapha bi leen sëñ bi yeewee ñu war a jóg dem bi ñu demee ñu ne ko gan ngi jógal ñu dem waaye sëñ Omar Mbacke di leen geesu mu ne ko da ngaa bëgg ànd ak ñooma ànd leen bu leen tàggoo ànd leen te bu leen tàggoo ànd boobee tey jii moo waral lu bari li nga xam ne xew na ci diggante mbokk ko rafet bu demee ba ci digg waxtaan wi incha allah loolu dana leer sëñ Omar Mbacke nag wax na ne baasin miim sëñ bi moo ñu ko dalal ca kër sëñ sooy bu Mbacke ñu koy wax dëru naar ba ñu demee mu dalal leen baasin miim ñiy jàng di jàng di jàng ba àgg ci sóoratu Yaasin nga xam ne ñeent fukki isib yi ak ñaar jàpp ñeent. moom jànge nañ ko ci sëñ Touba ci gannaaw ba mu leen dalalee Bachine waaye yàlla mi dara tëwul ci jamono jooju nga xam ne àgg nañ foofu ci la nattu bi ñëwee sëñ bi war fee jóge dem liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam ci boobu ko yonent bi feeñoo ci jàkkee sëñ Mbàkke Madina jooju ci Daaru Xuddoos ànd ak waa ahlu badrin ba muy dem mu daal di woo borom Darul Muxti jël ki nga xam ne mooy sëñ Omar Mbàkke gelongal ak sëñ ma Masamba mi nga xam ne daloon na sax door a ñëw ci sëñ bi moo ne leen jël leen nga yóbbu leen ca sëñ daam Abdourahman Lo ci Darou Alimal Xabir Moustapha Mbacke mii ak Cheikh Amadou Fadal mii kat tukki su gàtt si yi may def ci Jolof dama leen ci yóbbaale waaye bu may dem di liggéeyi danañ dir siwaat fekk leen fii maam Thierno daal di jafe loola sëñ bi daal di ànd ak ñoom ñëw Mbacke bari Jolof dafa ak ñoom ñeenti weer ba ndigalal jóg jot bi mu demee bay bëgg a jóg nag. la leen jël nag teg leen ci loxol maam Thierno bi mu leen tegee ci loxol maam Thierno nag dénk leen ne leen damaa bëgg nga yare leen Touba jàngale leen fa bu manoo su mënawul nag fépp fu ko yàlla tudd neex dama foofu la géey bu rëy la fi maam Thierno def bopp doy na waxtaan. sëñ bi demee ci géej gi maam Thierno daal di jëfe ndigal la ñëw ba a nekk Touba tubaab yi tere ko ko waaye bëggul daray fit na te bëgg na li ko sëñ Touba dénk ñoŋ mu daal di ñëw Mbacke Bawal waa Mbacke na ko fii kat moom doo fi dëkk. ndax loraange ji jóge ci tubaab yi la bañ mu ñëw ci yow di wàll si ci ñun mu dem ba ci soowu Mbàkke mu daal di fay dëkk fekk defoon na fa am sàq waaye foofu dénk ku mat a dénk rek mates na fee doy am jàngin mu yor ma du Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Lamine Baar sëñ bi ñaanal ko dénk ko waaye ci jamono jooju ay jafe-jafe dab na ko fa ndax tumuranke na fa te dem nañ ba amatuñ lu ñu lekk dund ba xaw a jafe lool te bëggul ñu xiif bëggul ñu mar yàlla dogal nag ci jamono jooju am baykat bu mag bu dëkkoon Mbàkke bayoon am ñaari sàq yoo xam ne daanaka nawet ba xaw na ko fa fekkaat ndax ñàkk ko mën a jëfandikoo mu ne da koy jaay ñu ñëw wax ko maam Thierno na ko sàq yee kat borom nee na da koy jaay mu ne laajal leen ma lu mu koy jaayee mu ne ko juróomi téeméer la ko jaayee waaye sërxewul mayewul léblewul te maam Thierno yorul juróomi téeméer yooyu. waaye ci wallu gi ko sëñ Touba wallu sëñ Bandoumbe moo xëy nuyu si ko nuyu wàlle ko juróomi téeméer yooyu mu daal di dem jënd sàq ya daal na lii de bu fekkee mbayee koy maye mbay ñoo koy maye duutuma ko jéggaani fen loola am na lu mu jur loo xam ne dem nañ ba mbay moom ku ko ci daqoon amul ba ay jamono tubaab yi sax demoon nañ ba prisonniers yi ñu tëjoon dem nañ ba amatuñ leen dundale ci moom lañ mujj ñëw di ko leb ci dund mu lebal leen ba noppi tubaab bi indi kayit ne ko dañoo bëgg nga signé mu ne ko signé ndax lan mu ne ko dañoo bëgg ñu la koy fay mën a xam nuñ la koy fayee mun leen man lëblantiwuma ak yéen kii dul jeexal kooku lay leen waaye yéen moom lébal ma leen nga xam ne noonu la leen ko joxe nga xam ne yoonu murid yàgg nañoo participer ci réew mi waaye gannaaw bi peste bu rëy bu metti muy peste bii nga xam ne tey moo confirmé Covid 19 bii dab leen fa nga xam ne jamono joojo ku mas a dañuy takk buum ci sa tànk. xëcc la ba ca àll ba jël sawara taal la néegi ñax ya ngeen nekkoon yëpp dañ koy taal bu dee dëkk dañ koy taal ndax amuñu woon saafara tawat joojee ñëw daal di gaar Cheikh Mamadou Moustapha du Cheikh Mamadou Fadal gaar Cheikh Mamadou Lamine ak ñenn ci jaboot gi Cheikh Mamadou Yëddaali sax yàlla dogal na ci la daal di génne àddina barabam booy génn Mbàkke da ko séen ci sa kët ak càmmoñ maam Thierno jaaxle lool ak jaaxle gu mat sëkk waaye ca nam mën a waxee sëñ Touba mu julli ñaari rakka daal di ñaan ne sëñ Tuubaa de dénkaaneem lii mu ma dénk te wóolu ma rek tax mu dénk ma ko su naree ñëw te fekk ko fi de maa ngi ñaan ci barkeb suñu borom na jël bakkanu sama ñaari doom yi muy sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Modou Awa Balla sama bakkanu waajur wii muy soxna Faati Isa Jóob yàlla dogal ca na man a waxee sëñ Tuubaa ba ko xamalee ne ko jàngoro ji kat. ñëw na gaar na ñii nga xam ne mooy njaboot gi te bëgguma nga ñëw te dool nga fi fekk seeni bàmmeel ma bëgg nga ñaan ci na ko ñooñu kat ba mu leen juree tudde leen tudde yonente bi jàngal leen laa wàccoog ñoom te man dama bokk ci ñi nga xamante ni si dañooy njëkk nangu dogalub yàlla yàlla danga koy bàyyeeg boppam mu dogal lu ko neex nga door a tàllal ñaan ko lu ci yàlla def soob na ma yàlla nangu ñaan nga yàlla dogal ñu tawat ja daal dañ ci seenu yaram sëñ Modou Moustapha wér na Cheikh Mamadou Fadal wér na yàlla dogal nag Cheikh Mamadou Lamine Baara yëf ya des ca moom waaye sëñtu baa nee na woon kat bu leen koo gétan ci dara lépp lu ngeen koy wanati na ngeen ku ko won ba mu gis ko ndax koo xam ne xam na lal fa aaye jóge ak fa la laaya di tekki te alxuraan wàccigul kooku moom wan leen ko ko ba mu gis ko rek kooku kon mel na ne sëriñ tubaa am na lu mu xamoon ci moom waaye jëmm ju toll noonu Serigne Touba dong moo mën a doon bàyyam te moom si Amadou Moussa ñoo lépp jamono jooju nag la maam Thierno foofu ñëw buy ngura moom la ñuy wax ngiraaneen foofu la nekk ak ñoom ba leetar yi ñu doon ci Serigne Touba naan wàcc na liggéey foofa la ko fekk foofa it la soxna Fatou Issa Diop taxaw taxawaay bu mat sëkk xett li murit yëpp ci jaaxle googee gannaaw bi mu daal di jël Cheikh Amadou Moustapha ak Cheikh Amadou Fadal andi leen daarul xalimal xabir sëñ daam mu mottali leen ëllëwa ji leen sëriñ Tuubaa dalaloon Cheikh Mamadou Moustapha fukki atam ci la dal jàng ci la bind kamil ba kamil ba fekk na sëñ Tuubaa ca Gabon bu ngeen déggee tur woowu ñu koy woowee naan Moustapha Kamal Moustapha Kamal xam nga moom lañ koy woowee Kamalu lillahi moom yàlla rek a ko yeyoo waaye dana ci may ku ko neex nag muy gaaw gaa mat a tax fukki at ci la tàmbali kamil ci la ko wattu ci la ko bind moo tax ñu naan ko alkamal kamal kamaal jooju moo tax ñu naan Moustapha kamal ba ku ngeen dégg ñu tuddee ko kamal moo xam ñu tuddee ko Cheikh Moustapha wala ñu tuddee ko Cheikh Moustapha Fall mi nga xam ne moom lañ tuddee Cheikh Moustapha rek xamal ne kamal ja foofee la cosaanoo ca gaaw gaaw matal njàng ma ci euh, tilawatan wa hifsan mokkal ga ak wattu tax kamal mu ngeen dégg ñu tuddee ko Cheikh Moustapha rek kamal jooja darul xalimal xabir googu fa la ko tuddee bi mu noppee ci njàng njàngum alxuraan ma sëñ maam Mor Jaara jàngal na ko xam-xam maam Thierno it jàngal na ko xam-xam diir boobu mu nekkee nag ci njàng yooyu Serigne Touba kaamilu sëñ Modou Moustapha fekk na ko Gabon mu bég lool ak kaamilu Cheikh Modou Fadal ba yàlla dogal nag diir boobu mu nekkee ci yooyu sëñ Touba def na juróom-ñaari at yu teg tuuti ba daal di ñëw Sénégal ba ñëw Ndar ñëw ci yenn Jolof Euh, ñëw sànnoosi ba daal di ñëw darul xalimal xabir euh, walla mu ñëw daru salaam foofa la wooloo nag ka nga xam ne mooy sëñ Bachir waaye bi mu fa jógee ñëw darul xalimal xabir ba ñëw daru man naan nag fa la euh, waat ak sëñ Modou Moustapha ak Cheikh Modou Fadal nattu leen ci alxuraan yi nattu leen ci xam-xam ba xam ne lim ci bëggoon nii la ko bëggee woon mu daal di tàmbali nag di def ci ñoom ab yar di jegeek ñoom yenn saa yi mu jàngal leen miinal leen boppam ba juróom benn weer yi teg ay fan yi mu fi defaat wala juróom-ñaari weer bi ko tubaab bi jàppaatee di ko yóbbu gànnaar ba muy dem ñu ëpp ci njaboot gi leen yubbaale waaye ñoom ñaar dem nañ muy mu Modou Moustapha ak Cheikh Modou Fadal ba mu demee it foofa dafa amoon fànni xam-xam yu nekkoon gànnaar yoo xam ne ku ko masaan bëgg a jàngi danga daj lu nekk te boo demul gànnaar doo ko am te jamono jooja dem gànnaar amul te kenn ñi mu ta dem ci njabootu sëñ bi te sëñ bi joxul la ci digal sëñ ba far yu baale leen fa yenn saa yi bu ko ko jot gi mayee ca gànnaar ci barab yi mu jaar muy sarsaara ak tintu moxsin ak jaraare ak xumaag jamono jooju sëñ bi moo leen daan dalalal moo leen daan tëralal bopp bu ko ko jot gi mayee bu ko ko jot gi mayul amoon na xariti naari gànnaaram yoo xam ne si xam-xam boobu dañ koo feese del muy xel ma tajwid ak ma xarijal xuruf xam-xam yu xereñ mu jàngal leen naar yi jàngal leen ba ñu géeju ci xam-xam xam moom la sëñ Moussa Ka baam baa ngi leen tarbiye fii fi sar saara ak i jarjaari ya ni wàllan saara bàmbaa ngi leen tarbiye fii fi saara ak i jarjaari ya ni wàllan saara waaye njàng ma foofa la mate waaye seenug tarbiya foofa lañ ko tàmbalee waaye seenug tarbiya mi ngi mate jolof ba njàng ma jeexee nag benn bi sëñ Tuubaa woo na leen ba ñëw ne leen kees gii dinaa fees ak téere li dala ci téere bu ci nekk nag li dala ci xëtu ndeyjoor bi ba ci xëtu càmm ñu bëgg naa seen ah, seen bët bi tegu ci gaaw gee mokkal ak bañ gee fàtte kooku man maa ko war loolu nag yéen loola nangu guñ nangoon a jàng tax sëñ Tuubaa jagleel loolu moo tax amul lenn lu ñu xamul ci lu xam-xam di indi ci lu am njëriñ ci fànn yëpp sëñ bi nag tàmbale di leen tarbiya ñiy solu di liggéeyal sëñ bi nit dong yi di liggéeyal sëñ bi ci fànn yëpp mbind yi mu daan bindloo kaamil yi muy ñeen fukki kaamil yooyu nga dégg sëñ Modou Moustapha ma nga ca sëñ Massamba nga ca sëñ Modou Rokhaya Bousso nga ci Cheikh Modou Fadal nga ci seq dañ ak gaal di ko bind ñeent fukki kaamil yi ñu bindal sëñ Touba loola ca tarbiya ga lañ ko tàmbali te loola yàqul woon ca demum tool ya yàqul woon ca defir curi ya nga daan ci defal fa si dégg nga Cheikh Modou Fadal ni mu daan nettalee curi bi tubaab bi doon defar loolu sëriñ Tuubaa muy curi boo xam ne si sëñ bi lañ ko doon liggéeyloo ci boppam ñoom ñoo dikk ne ko jox ñu ko ñu liggéeyal ko mu ne àndali nag tubaab bi ngeen dem mu wan leen ni mu ko bëggee mu ñëw mu wan leen ko sëñ Fallu nee na ñuy rëdd rek di rëdd jëm ci àll bu kenn xamul nee na ñu daal di dem tàmbali dagg ay bant gor am ngeer ñëw defar curi ba lu toll ci juróom-ñaari fan astaghfirullah ñetti fan ñu door a ñëw ci sëñ bi ne ko yëf ya day noppi na sëñ bi ne nañ dem ma xool ko mu ñëw xool ko daal ne xum ni mu ko bëggee woon am amee na ko noonu moom tubaab bi waaye yéen ni ngeen bëggoon lépp am ngeen ñu continuer nekk fa di tarbiyewu di liggéey di bindal sëñ bi ay téere ak a daw ay service xiif bu méttee méttee méttee méttee nag dab na leen foofu boo xam ne la sëñ Tuubaa na wax naan ak ruu da nga koy def yar ni ñuy yare mbaam da ngay néewal xont bi te sëf ba diis tàggatu ruu googu sëñ Tuubaa def na leen ko ci gànnaar kon nañ taxaw foofu ñëw ci ñetteelu xaaj bi ñëw àggale ko ak yéen fa dund yépp door ñëw nag ci ñeenteelu xaaj bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. na ya xam ya yàlla